عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنترنت جنرال تي في جينا بقول لنا نيو جيار لنا نقول لنا جوا جوا دلنا بالاق دلنا بالاق سايل نين نقول لنا فلسة أسك فارق وتوبك تايم ماري 31 سنة في 2023 دلنا بريزنت سينيما شون ديبريفين توبك 17 نمبر دلنا سيزون سيزون 2022-2023 لين نين نقول لنا فلسة أسك فارق نيجي دوجي بسم الله الرحمن الرحيم سنبرم دبلجيو جي حالك الحمد لله رب العالمين ها di bëgg ñëpp di char yëpp ki leen koy présenté seen frère la Pape le général euh, wala nga ne général bu ngaan borom général TV ànd ko équipe bi ak groupe bi mm, ku ci mel ni Ndiaga Faye borom Ndiosmone mm, Mamadou Diouf Saltigué depuis Mbour Modou Sarr le frère Satiwalia euh, di bëgg ñëpp groupe bi 100 pour cent bi Kamou seen le président ñoom Ndiassé bu Doudou Sané moom bu euh, ordinateur rijal bu dudu sani ak gaayab ñi ne ci biran buñ démé dañu jum di bégé ñëpp di xaar ñëpp ci avant tout d'abord dañu présenter suñu condoléances ki nga xamné moy suñu papa serigne modou ñan diko jaalé wa ahlul lamb yépp waaw mu ñaan production diko jaalé wa ahul lamb yépp diko jaalé wa sénégal ne kon suñu papa ju baax papa ju am diiné am l'islam diko jaalé wa monde lamb diko jaalé sénégal yépp yépp yépp diko ñaanal fimu joggé hmm, fimu jëm daxal ko fimu joggé jay seyna mohammed yalla xaré ko ci jaratul firdausia ya. jaay Seydina Mohamed acca dañuy dugg yéen ni ñu leen ko defee à chaque fois euh, ñaari partie lay doon première partie bi résultat lamb yi am ci week bi lay doon deuxième partie programme yi war am ci week bi incha allah rabbi acca tout droit ñu bañ jël temps dugg ci résultat yi euh, vendredi euh, tombeeg le janvier ñoo leen Ndiobène Talen Ndiobène Talen amoon na lamb Ndiobène Talen mu ngi Kër Socé hmm, boo ñëwee Kër Socé da ngay dem tout droit Lamaram amoon na lamb le 27 janvier 2023 vendredi mise bi doonoon ñaari nag ak 10 000 francs ñaari nag ak 10 000 francs la woon ñu gisoon fa lamb ju neex parce que ay génération ñoo fa newoon presque booy ju neex euh, au finish ki nga xam ne mooy laadum laadum Dakar laadum di rakk ci fils de Balensiki di rakk ci fils de Balensiki laadum moo jël lamb ji nga xam ne mooy El Capo bu kër Farba Mbin Farba waaw El nekk ndaanaan dafa jaxasoo mu def recours recours bi jàpp mu ñëw dem final moom El Capo moo final ak Laadum Laadum daan ko kon Laadum moo jël làmbu Ndiobène Tallene 27 janvier 2023 bu ñu jógee Ndiobène Tallene dañuy ñëw Coombi Coombi Gandiaye Coombi Signane amoon na làmb le 28 janvier 2023 euh, mu nekkoon tamit làmb ju neex car macha allah mise bi total 1 million 350 mille euh, ñett drapeau la woon ñeent drapeau la woon sax amoon na poussière raw gàddu euh, poids léger ak poids lourd ñëw ci raw gàddu yi. CFA CFA le phénomène CFA borom sopp jaxaw CFA hmm, moo jël raw ci nga xam ne mooy jàmme fay bu ndak jàmme fay di ko encouragé nee naa leen car macha allah ñoom ñaar ku leen xool xam ne mat nañ bër parce que mën naa ne ñoo débuté ndoo bëri nañ daaw final CFA daan ko ñu tasewaat ren final CFA daanaat ko di wax jàmme bul découragé lamb la c'est le sport acca boo ko gënee gëm gën a jàpp di nga doon champion incha allah rabbi parce que sa taay may na la ko sa bëre tamit may na la ko di félicité ki nga xam mooy CFA borom soob jaxaw le phénomène nee ko borom ko euh, félicité bu baax a baax a baax a baax bu ñëwee ci poids léger bi hmm, ñu gisoon final bu neex hmm, wala ñu ne poids léger bu neex drapeau poids léger bu neex poids léger boo xam ne raar na li muy am ci poids ah, la première euh, apparition de de Brosse El Bandi hmm, dans la région si région de Kaolack wala nga ne commune de Gandiaye ah Brosse El Bandit ñëwoon na hmm, Brosse moom fa woon ñoom Fodé Mbissane moon Fatick hmm, Babou Soudiane ah Monument Ndianda Diatta Passy non poids légers yow car macha allah poids légers yu amul fenn biñu au finish yi nga xam ne mooy Monument bu Ndianda euh, moo ko jël ci nga xam ne mooy Brosse El Bandit quoi Monument Ndianda moo jël poids légers ci nga xam ne mooy Brosse El Bandit bu ñëwee ci poids lourd tamit. dàq poids léger bi parce que poids lourd boo xam ne même génération ñoo fa nekkaat poids lourd bu am Cheikh Ndiaye Dande Maayo am fa Papa Ngane Sossokh Ndiol Zayan Rajaxe Toubacouta hmm, Sayer Ndama nekk ci biir Fapi Seen nekk ci biir Idi Ngariñ nekk ci biir Modou Lo Mbite yéen non sunu limee dañuy juum poids bu neex car macha allah mu amoon coom bi ñu tegaleen 600000 lañ leen tegaloon 600000 de francs CFA nee naa leen poids yi fa am coom bi sax hmm, man moom a dàqal lam bu ñu teg ay 1 million wala 2 millions. car macha allah parce que benn génération ñu fa ne mu doon lamb ju neex poids lourd ki nga xam ne euh, mooy euh, Ndiol Sayan Ndiol Sayan borom Bargny moo ko jël ci nga xam ne mooy Sayer Ndama bu jógul loolu coom bi la xoon coom bi si ñaan le 28 janvier 2023 mention spéciale waa coom bi lamb ji neex na trop trop euh, di nuyu président bi nag au passage waa lay jafe-jafe mais naa dafa xawoon a dese comprendre rek parce que lamb mën naa ne kenn nit wala ñaari nit duñ ko liggéey c'est la am ko joxone ay TV TV yu ko ku ci mel Lamine ak La ak euh, wa TV mais bu ngeen ko joxe kenn ni joxe ko c'est la famille on est ensemble ñu ño far incompréhension moy am rek mais suñu waxtane rek dañuy que ah, di bëgg wa yëpp di leen nuyu di leen di leen jox way baaxa a baaxa baax a joggé bi dañuy mbam lok mbam lok amon la le 28 janvier 2023 Mbam ñu fa kon le 28 dafa le 28 samedi 28 dafa doubler. moo jël mbam loog la njëkk a jël bi mu jële mbam mbam jeex mbam dafa teel jeex mu daw si ñëw fi nga xam ne mooy coom euh, bi jël coom bi njool sañam jël lamu mbam loog ci kaw ceeb bu sowal fa lañ daw see ñoom ak ñoom mamu njongoloor ñëw fi nga xam ne mooy coom bi coom bi mamu njongoloor demi final la fa daanu léegi naa demi final la daanu mbam daanu demi final fi nga xam ne mooy coom bi di ko encouragé moom mamu ne ñun kontaan nañ ci moom amateur yi kontaan nañ ci moom kàddu amateur yi la ñuy waxtaan la ñuy waxee parce que ñun ak amateurs ñooy toog chaque fois lu tax ñu kontaan ci moom mooy moom ak xale yi mag donte mag bi mën na bañ a demee noonu mais mën nañ ne leen mag moo leen jiitu ci làmb toog na lu yàgg tamit bëriwul ñu gisaat ko bi mu defee retour car macha première sortie am dafa def final moom Mamou Ndiogolor sortie yi mu ci teg yëpp dafa baax soo seetee fan lay ñàkkee demi final wala quart final kon Mamou ñun ñoo lay encouragé bu baax a baax a baax a baax naan a a leen gis nga ko ñoom baaw baal bi ñëwee ñoom seeku cuuf gis nga li booy ñun yéen lañu àndal kon moomu ñoo lay encouragé baax a baax di encouragé vétéran yi du ma ay ancien goulaar ay vétéran laa leen tuddee ñoom ñëpp di leen encouragé naa acca yéen mun booy de noonu la fa demee nag acca foofu mbamloog njool sañaa moo ko jël ci nga ne mooy ceeb bu sowal le 28 janvier 2023 xam nga gars yi bu ñu jógee coom bi le janvier Jax production moo fa oote woon tegaloon gars yi mise am solo mise toll si 5 millions de francs CFA 5 millions de francs CFA répartis en trois catégories animation le duo de soc la woon Momo Ngom Mbayang Loum 3 5 millions de francs CFA répartis en trois catégories. ma catégorie la woon mm, raw godu bi toujours le phénomène Ngor Ñaax l'enfant de Mbel Sob l'enfant de Farambugu Ngor Ñaax moo ko jëlaat moo jël raw godu bi ngoor luy secret Ngor bu ñu ko bindee poids ñëw jël poids léger Ngor ko wàccee raw godu mu loolu kaala la ngóor car macha allah moo jël poids léger moo jël raw gàddu bi ci nga xam ne mooy Samba Diouf jaxaaw raw gàddu yi poids léger yi euh, ñu gis la phénomène njool bu sana ndeysaan def euh, lu am solo hommage à Ibou Diaw seen frère la ku doon ànd ak ñoom ku bu bëccëg ñoo defal ko hommage ndeysaan njool bu sana nee na loolu la loolu la bëri si keroog ba tax na njool sana moo jël poids léger yi ci nga xam ne mooy la phénomène seeni barñi hmm, final poids léger moo ngi doxal si diggante njool bu sana njool la joolaa ak ki nga xam ne mooy njool bu sanam moo jël poids yooyu ci nga xam ne mooy seeni barñi euh, bu ñu ñëwee ci poids lourd yi poids lourd sixième sortie sixième trophée Doudou Sané moo jël poids lourd ci xam ne mooy caaka fay biram pokunkung loolu mu ngi amoon arène nationale dimanche 29 janvier kon Doudou Sané def six sorties six sorties ci li ma jàpp six sorties six sorties yëpp car macha allah six trophées la moom Doudou Sané di ko féliciter encourager di encourager di ne tamit mooy caaka fay ñoo mun booy de waaw waaw bu ñëwee dañu am dara kon nekk leen ci rek incha allah. dimanche arène nationale dañuy ñëw euh, le 29 ba tey Kocoox Kocoox Kër Martin ngay wàcc dem Kocoox amoon na lamb le 29 janvier 2023 lamb Kocoox Mawla Ndoos Mawla Ndoos Salmon moo ko jël ci Birame Bissine Sène Birame Bissine Sène ñëwoon na arène nationale dafa daanu huitième de finale li moo ko fa daan. mu dem fi nga xam ne mooy Kocoox finalu ko mook bir euh, mook Salmon Salmon Ndoos Mawla Ndoos daan ko foofu final. Euh, loolu mu ngi amoon Kocor poids léger Babacar Ndong moo ko jël ci nga xam ne mooy Ndeb Ndeb Badiane bu Jilaas loolu mu ngi amoon Kocor 29 janvier 2023. aca bu ñu jógee Kocor dañuy dem dans les îles du Saloum Baasul Basaar di moins Basaar Basaar amoon na lamb ah le 29 janvier 2023 le 29 janvier 2023 Ibzo Soval Ibzo Soval borom Baasul moo jël lambu Basaar bi ci kaw Gajab Maane Gajabu Munde loolu mu ngi amoon le 29 janvier 2023. poids yi Madi Reug Reug Madi Reug Reug moo ko jël ci nga xamne moy mooy bu jël ndax lolou ma ngi won bazar le 29 janvier 2023 bazar batay dañuy del yak Kamyak marne kam Kamyak ndaysan dekk sunu papa euh, Jiga ci kam Kamyak di nuyu wa Kamyak yak yep yep yep ah. amoon na lamb 29 janvier 2023 bisane fo dem bisane mo jël lamb Kamyak ci xamne moy abdou Abdou Abdou sar Abdou sar waa Njana ah. ma ngi kam Kamyak 29 janvier 2023 jógee Kamyak yak batay dañuy ñew jaxaw euh, Simon lamb Simon Demen lutte avec frappe la woon bëre dóor la woon yëngu bonje moo ko jël ci nga ne mooy jooral bu Simon poids léger l'homme actif moo ko jël ci nga xam ne mooy Padoua Ndemen loolu moo ngi Simon Simon Ndemen jaxaw avec frappe yëngu bonje vainqueur sur jooral bu Simon l'homme actif vainqueur poids léger sur Padoua Ndemen aja sama gars yi leen comme résultat yi fi amoon ci week bi dañuy dugg ak tout droit ci programme yor am ci week bi di ñëw incha au 6 février incha allah rabi dañuy njëkkee làmbu jagle jagle Sokone jagle Sokone dëkk ñoom Doubal ak ñoom Oussou jagle am na làmb du 2 au février incha allah rabi poussière ñu tegal leen 50 000 euh, ñu tegal leen benn nag ak 16 mille francs poids lourd ñu tegal leen ñaari nag ak 10 000 francs animation yaa nday Fatou Adama Jali ak Mor Ngom jagle Sokone dëkk ñoom duubal euh, ak Oussou jagle le grand champion du 2 au 4 février incha allah rabi le 3 février incha allah rabi Ndiédiène Ndiédiène Saloum Ndiédiène Kër Socé Lamaram jël rang-rang bi tout droit Ndiédiène ah am na lamb le 3 février 2023 ñu tegal leen cinq nag ak 50 000 francs juro mi nag ak 50 mille lañ leen tegal foofu ci Ndiédiène animation Mbaye ak lu lay doon ak Ousmane Ngom bu Kumbal Ndiédiène Saloum le 3 février 2023 ku bëgg a dem Ndiédiène da ngay ñëw Kaolack génn Kër Socé laamaram rang-rang baa ngi foofu tout droit Ndiédiène le 3 février 2023 mise bi romi nak la ak 50000 francs animation Mbayang Loum Ousmane gom kumbal Ndiédiène Saloum gi Ndiédiène dañuy ñëw ba tey région de Kaolack département Guinguinéo gagnik ah Gagnick ku bugg a ñëw Gagnick euh, Kaolack nga joggé da ñëw ba Samba Dior nga jadd sa ndeyjoor tali baa ngi foofu moo jëm gagnik budé côté Gossas nga joggé tamit sa goss ngay jaddé Pàcc Samba Dior ngay jaddé ah am lamb le 4 février inshallah rabbi 2023 ñu tégal leen nak ak 60000 francs nak ak 60000 francs animation yaa Fatou Adama Diali ak Mor Ngom le 4 février inshallah. allah. aca le 4 février 2023 tout droit lamb TV la ah arène Ndiadiaye Fatick inshallah, allah rabi mise bi duñ leen ko wax 500 000 francs CFA le 4 février ben de la lamb Lamine TV Ndiadiaye Fatik. Auto ak 500 000 francs CFA animation le duo de Souk Momo Ngom Mbayang Loum foofu ci arène bu le 4 février inshallah, auto avec 500 000 francs CFA lamb TV tout droit lamb TV TV la lamb amateur ah, lamb Sénégal du 3 au 6 février Simal hmm, euh, arrondissement Fimela Simal 3 hein, au 6 février mise totale 2 millions de francs CFA mise totale 2 millions de francs CFA trois catégories hmm, du 3 au 6 inshallah, hein, mise totale 2 millions de francs CFA Simal lay animation Yandai Fadou Fatou Adama pour du 3 au 6 février mise totale 2 millions de francs CFA et ci programme du 4 au 5 février 4 au 5 février Joal Fadiouth lay xewé Manga production ñoko organiser organisé mise totale 20 bœuf ñaar fukki nak lañ leen tégal fofu non du 4 au 5 février le 4 ak le 5 trois catégories là, animation Mbayang Loum ak Palo palo bu ah. la Manga production 4 5 février inshallah allah Joal mise bi 20 bœuf ñaar fukki nak lañ leen fa tégal animation Mbayang Loum palo 4 5 février. atet batay dimanche 5 février 2023 arène nationale. Jax production moo ootewaat dimanche passé teg na fa 5 millions dimanche bi 5 février mu tegaat 6 millions de francs CFA 6 millions de francs CFA la la leen sama gars Jax production moo ko ootewaat foofu ci arène nationale animation toujours le duo de soc Momo Ngom Mbaye dimanche 5 février 2023 arène nationale Jax production mo fa woote tegal gay am solo 6 millions de francs CFA acca sama gay lolou loolu lañu doon comme programme mu yu fi jot yi fi war a am si weekend bi ñu jëm incha allahu rabbi ñu leen ko waxee à chaque bu dëngee ci ñun la bu jubee si suñu borom la ñu ngi jégalu bu baax a baax di tuub di jaar ñëpp ah di bëgg ñëpp di bëgg waa équipe bi ah, Général TV waa 100 pour cent bi Général TV Pro fàttewuñu kenn aca ah, di bëgg suñu frère Diegane Diegane fay Diegane ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la jaar di la jox wàcc waay Isma Diop depuis Sandiara ah, duñ la fàtte eh, Cheikh Diouf l'homme d'officiel hmm, Baye Sall Sène hmm, bëri nañu bu ñu limee dañuy jum di bëggee mbokku internet yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp képp kuy bëggee Général TV waa Général TV ñu ngi lay bëggee euh, di safo euh, di la ndamoo fay Faye depuis Maroc Ismaïla Dieng Fallou Diouf Omar Sakho Babacar Ndaw hmm, marocain sama espagnol bi maa ci jóg waaw yaa ma xam ku lu xum daal bëgg waa Sénégal yëpp di leen ziar di leen jox wàcc di leen jox rendez-vous beneen mardi ak seen beneen numéro de briefing incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah